kon bàcc ci nga lay dalal jàmm di la xamanle ci man nga jaar waaye nag kër gi moom mu ko mag ñëpp a ci yem dañ ko dalaloon ndong kon duggal ci biir kër gi waxala la ñëpp bu ci am frontière bu ci am tendance parce que man noonu laa di waxee amul tendance amul frontière euh, amul kenn koo xam ne dana jógee feneen sa dikk ma koy accepté déedéet loolu baaxul li am solo rek moo ni kenn ku nekk ànd ak ñi mën àndal ñu liggéey mu ku mën a mu convaincre ko pour que bu ñu àggee ci yëf yi li ñu bëgg ñu am ko parce que président mérite na ko ndax li mu fi def wane na ko barki dem rek gis ngeen bi mu fi ñëwee euh, yoxoosu nang dikk seet si sëñ bi baat bu baat bu jëfandikoo sax ma ni damaa rek seet si sëñ bi loolu mbir mu rëy la dikk wax ak sëñ bi jébbalaat ko boppam di doomam di taalibam di leppam euh, wane aussi wan ko bëgg koo xam ne bëgg na ko dëkk bi kon foog naa ne loolu aussi ñun am nañu responsabilité ci jàppale ko ci ci